waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokku diaspora bi di nuyu ñëpp di rafetlu toogaay bi macha allah tabaarkàlla nee naa la lu yëngu lu na la ko yëngal ko doole. te nee naa la njuutu lu ne njuutaay la waaye ku ci gileem juutu tabaarkàlla nga gis njuutaay lu sori su may way walla may wax ci Cheikh Bamba général. nee naa la duma ma doyal ndax fii ku ñeme dañ laa dee te ndox bu xeeñee rek dafa rax. Seex Bamba nee na me Bamba borom Tuuba ajara na xam ndiir. nee naa la baaxi mbokk yi tax a baax wërsëg dëkkul fenn ndeysaan kenn du nduru mbokk kenn ku ne say mbokk ngay ndiru Cheikh Bamba général saltige caajaay bi su ma neexee jaare ko ci fay biram penn waagaan dugg dugg waagaan xanjis waagaan waagaan ku Massa Ndiaye kooku Mbaye Ngom mooy maamam moo aay ci soxla gaañi ku feebar boo ñëwee mu faj ku xiif boo ñëwee mu jox la nga lekk ku wedd ma laaj wax dëgg yàlla di naan xare xare ku ko ku ko fekkee rek moo ko mën a nettali wax dëgg yàlla wax a ngi doog jot nag. nee naa la bu may wax ci Cheikh Bamba général. heure bu ma ñëwee ci kër seex Bamba général damay kontaan kontaan ba sama kontaan kontaan may ma toog jaaxaan di reetaan mel ni kuñ coqataan ci poqataan wóor na maam jaara bu sa borom poroxaan bëgg Cheikh Fall lool bëgg Sëñ Touba lool. bëgg njabootu sëñ Bamba bu baax a baax a baax jël yaakaaram jël àddunaam alaaxira loo ko gën a loo boo bëggee nax sëñ sëñ Cheikh Bamba général da koy jaare ci maam Cheikh Rafal daa maam say Ndiaye biram jege nga ca mbaay góor dëgg góor dëgg bàyyu Lalla Fall naa la li ko dalee njukki ba ñamatin dañ daan dajaloo di naani biteel nee naa la maam Cheikh Rafal moo ko fa jëlee ba diina dafa leer kon sëñ Cheikh Bamba général. nee naa la. taalibe Serigne me Ibra Fallo way nee na ma xale ñoom ne xooloo me Cheikh Bamba général naa la li yàlla nam war na lu jàmbi nam war na yow jàmbi boo namee toppal li yàlla nam ndax toujours namu namu yàlla mooy nammi nammi bu yàlla ne waaw léppay changé nee naa la da lay ci benn yóbbu la ci cent. fekk la ci fukk yóbbu la ci deux cent nee naa la moo ci mën fuuf Cheikh Bamba général su ma ñëwee nee naa la bu may wax ci Cheikh Bamba général damay kontaan ndax wax dëgg yàlla lekkatu kase naxul bay ngaskatim naa la ku benn ñaata ak ku saam ñaata bokkuñu te wax dëgg yàlla nitu yàlla daa bokkul ak sëriñ Cheikh Bamba mii nitu yàlla la nee la. li muy baax baax baax social baaxu ëpp ci social lay dox di ci xëy di ci yendu di ci fanaan kon nee naa la mi ngi fii ci parcelle unité 25. képp ku bëgg lu baax ñëw fi wax dëgg yàlla toppewul nit dara moom balaa mën a kontaan nit ñëw ak tiisam nit ñëw ak naqaram nit ñëw ak ay jafe-jafeem mu fajal la ba nga gis taw feex ak Taysir yadde dey jusero fay mais jaɓen jaɓeno o ɓiɗo guina loola mais sahoma jaɓano fay nee naa la dafa yemale lépp te dañ naan ndey ji seex njaaxanaa la war a tëddee ah moom de wax dëgg yàlla nee naa la xàmmeewul boroomi milliard xàmmeewul boroomi million xàmmeewul boroomu téeméer rek boroomi ñaar fukk boroomi fukki dërëm ñëpp jël boole yemale këram gaa ngi nii boo fi ñëwee indi sa soxla dala koy fajal bu dee xiif mu ñëwee mu jox la nga lekk ba suur boole ci di la ñaanal di la ñaagal ah. Eh, ma dongel na lamin jaakeer way taw na ami seeno way nee naa la bu ñuy nee naa bu ñuy séddale jàngoro nee naa bépp bu ñuy séddale jàngoro jëlal siti waaw sama maam moo ne ma bu ñuy séddale jàngoro jëlal siti ma ne ah, mu ne ma ndoxum siti nga xam ne boo ko jëlee da ngay wokk muy gën a neex wax dëgg yàlla sëriñ si bari nañu mais man Cheikh Bamba général moo ma jaral te nee naa la ragal féete day xañ a wërsëg te li yàlla nam war na li jaam bi nam war na bu yàlla nammee yow jaam bi nga namm yow jaam bi bàyyi li nga namm te nga topp li yàlla namm ndax nammi namm yàlla mooy nammi nammi fa tabaarkalla macha allah jotaay bi rafet na. kontaan nañu wax dëgg yàlla seex Faye ngi nii. nee naa la naa la lu ko jar moo ko jar. wax dëgg yàlla ta nee naa li nekk suñu xol yëpp mënuñ ko wax buñ ko doon wax tey fii la ñuy yendu. wallaay ndeysaan di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal tawféex wax dëgg yàlla. Hmm. ngi ma naa ma no ma do ngeloro seri amina o gimo mi no ma do vayo ya gimi se o ma do birambe na wagan la de magate nyen vai ma ure jage jujun jai bai lo mi no ngoro yàlla bu yàlla di def mbir day bàyyi ba ñëpp nelaw mu def ko fa ñëpp xëy gis ko fa moo tax nee naa la lu waaye réyub cër réyub cër cër war na yóbbaale cëru nit cëru nit ku bëggit ba fa amit nawa gi noonu barki yonent bi borom cee borom ceeb yi neex yi ah nee naa la borom soos yi neex yi ah yaayu daba Serigne Cheikh Faye eh way sama yëgal ma lii. mais andi na baj bageeru na baj kewu bageera yoo ndawe. waaw Ami Ndaw Ndaw Saane nee na faram faxa bara mbir ak tukumaan waaw nee naa la yow Ami Ndaw boo ñëwee dañuy jug taxaw. wax ki yorati yàlla Muhammad. mais gi mi ami ami ami ami na tàndaw waay. waaw cum. tey na paj ke ten mbageero lu teewul bagel waaro nawo maafe moo jugun fuuf mais jey na paj ke ten o ndeɓandongo maxaan jey yaayu bébé gën a neex da ciy def ay lingom yu biti eh waay nawe domuti baba de miski liiru jandu tuto nawe afelanga ngo jayo waine nomino mado nawe mesher bamba bugangai ey manena nayo nawe ami Cheikh Bamba la bëgg Bamba ami la Bamba de abuga ngay seera lay ami lay abuga mais nane waay nane day mbudaay na jof ta ko